lii mooy yaa ma génnee prison ma génnee la palais dafa am njàngat bu am solo bu am ci image yi am nañu bokku ndey ak baay kii faraloon maki kii faraloon Sonko waxatuñ ay collègue de travail waxatuñ ñu bokk kër waxatuñ bokk ci réseau yi waxatuñ parce que ay saaga ndey lañ doon politiquer wax ju ñaaw uñi wante sutura léegi image baa ngi nii ñoom ñaar ñu ngi nii ku ci nek yaangi leung sa morom ñu ngi waxtaan ñu ngi reetaan ñu ngi jël seen petit café seede yàlla moo tax politique meun na metti lol ñu xëccënte ay mbag diisoo lool bokkuñu fu ñu far mais bu mu yagg bañu saga wante nday wala ñu waxante lu ñaaw parce que bés bi mo jëra xelaat ha ah. bés bu am solo ngi ni te ku dul xelaat ëlëk lu la neex defal amna ci tay ño xamne déggol li ma wax seen sey tasna nañ ci ak seeni xarit amna ñu ci seeni propre frère Yeah.